الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ñëwaat ci 1656 bi awnillahi nekkoon rek démb ci tolluwaayu jamono ak mbokk yi nga xam ni dañoo wax ni léegi nag lu ñuy def ba suñ njaboot gi baax xanaa yar leen waaye luñ leen di yare te ku feebar ku ne jàngoroon na ci moom jàngoro ju ne yàlla nee na wutal na ko garab gu koy faj ñi feebar mooy moykat yàlla yi kon lu nii mooy ñëpp bokk nañ ci malaat yi feebar jàngoro ji ne ci ñun euh, mooy ki nu ko teg danoo jëfandikoo lu ñu tere ñaari nit feebar bu ko dal rek lum naan la walla mu lekk ko walla mu noyyi ko walla moom mu jël ko di ko dugal ci biir yaram mu jaxasoog deretam nu nag li ñuy tuddee bànneexak ak jikko yu ñu ŋàññ yooyu moo ni moyloo yàlla lu ñuy def ba yar xale yi nag mu mel ni kon yar dafa dem ba xanaa dañ ko bàyyi kon dafa wàññeeku daa lu ko remplacer bali xew-xew nu tiit ni jamono nii muy doxe doxin wu gaaw ci yàqute jikko yi dinañ dem ba suñuy setaat kat duutuñu fekk mbaax ci kaw suuf boo xefee walla yaasu billah démb ñu waxtaane woon li boroom xam-xam yi wax ci jeexiti mooy yàlla fi muy yóbbu aw xeet li muy def aw xol fi muy mujj ak nit ak suñ boroom fàttilunu ñi mu alak ci dëpp suuf ci seen kaw ñi mu alak leen ci ndox ñi ngelaw ñi sawara ñi ay doj taw ci ñoom ay doj ñi mu soppi leen waaye terewul nit ki di jàng alxuraan wala jàng ko mu dégg nit ñi wax loolu ah, boroom xam-xam yi moom mu féetéeral ci mooy yàlla wal iyaasu billah mbokk yi ci yàlla mu yàlla am na tooke yoo xam ni ñeel na képp kuy mooy yàlla te bàyyiwu ko ndax bànneex bi lay mujj moom moo lay moom moo lay moo lay womat moo lay womat te day doyal dil ab jaam dalay doyadil dalay jële nit bi nekkoon ci yow dugal ci yow laneen lu dul ak nite da nga woyefal lool topp yàlla waaw léeg-léeg sax topp yàlla day diis ci yow trop nga tayel ci rek ak yàlla ni mu teddale doomu aadama waaw imam ahmed génn na ci musnadam jële ko ci abdurrahman ibnu jubayri an abihi qaala lama futi at xubrus ne la buñ ubbee xubrus ne ma gis aba darda mu toog moom dong dong di jooy ah ma ni waaw ñu ubbi xubrus islam war am dam muy jooy mun ko yaa aba darda lan moo la jooyloo ci bis bi yàlla teralal lislaam teraanga ju tol nii ak ñooñu lislaam mu ne ko way xakk yaa jubayru tuskare ñeel na la yow jubayru ma ahwana xalq ala llahi isa adaau amrahu mu ne ko yow yàlla gënta doyadil ay mbindeef yoo xam ne dañoo sank ñoo sànk ndigalul yàlla mun ko ah, ñu doyadi mi ngi yam ci ñu lànkal yàlla ñi mu gis ñu lànkal yàlla loola moom moo ko jooyloo day sànn waaw gis nga kon ndax baynama ummatun qairatun zairatun la umul mulk taraku amra fa saaro ila ma tara nit ñu mel nii fese nii daa wacc wàcc li yàlla tere ba mujj fii li ngay gis ni lii kay moom jar na cooy ok ci yàlla kon ci bàkkaar yu bari yu yu ñuy def mooy dem ba indi ci noonu ak doyadi duut ñu gëm suñu bopp ngay jàpp ni suñ lépp rek noonu lislaam yi ñoo ko yor ngay jàpp ni fokk nga jëfandikoo sacrifice léeg-léeg ñu sant la ko di nga ko def ndax gëmoo sa bopp gëmoo ngëm yàlla gëmoo lu la mën a aar ci sa diggante ak sa borom amatoo tawxiid ñàkk nga xam nga buñ demee ba lii xew Dubaay ñu ni sacrifice ci la bokk mooy am na ku la gëmloo ni la ngir li ne ci yow lépp lépp dañ daal euh, fokk nga génne say dem ginnaaw kër nit lekk ko xam nga loolu ngeen jéggal ma ci waxin wi ndax am na ñoo xam ne ba léegi mbir yi ah xamaguñu coow li euh, lan la nu nag wax dëgg yàlla am na loo xam ne dañ koo yàkkamti wala xool waaye maa ngi waxtaan ak suñu benn wëlëre maam Matar Gueye bu jàmbra moom vidéo yi la yor sax moom moom yor na ay vidéo vraiment suñu wëlëre woowu waaye mbokk yi loolu kooku xam nga ni ba attana joxe lu mat vingt millions ah, waxuma la nag jigéen da ko nangu waaye loolu xam nga doy na waar ki gëm ni soo ko defee rek li ne ci yow lépp lépp léegi day topp kooku allahu akbar su ci catak ci tëjoog ci nangam ana ngëm yàlla mbokk yi gis nga mooy mbir mi bu ko nit ki xisee ñàkk ah, moom ab bal la bu ne ci diggante njabootu iblis ñu di ko paasante fu leen neex jëme bépp jullit boo xam ni amatul ngëm amatul tawxid foofu la te loxo yi day wàññeeku mbokk yi di yokk li ëpp ci la koy wàññi yow ca nga nekk loolu bu yàggee day jeex moonu dal nag moo dal sunu xeet yi ala kul jullit yi nangu lii ma wax léegi ki nangu ñu fay ko ñu def ñu def ko ko ak ki ci nangoo fay defe ko di ko def kaneen ñoom ñaar ñëpp ñëpp bay bu ñu tudd Mohamed waaye ngëm yàlla nekkatu fa waxtu wañ koy def waaw euh, te boo ñàkkee tam it ay tayel ci jaamu yàlla ngay lott lool ci def lu jub waaw li ëpp ci say yëf yëpp daanaka ci ak neen ci ngay gën a sawar dangay ngay nay ci yàlla nay ci diine nay ci njekk ña albiru déedéet ndax ñaawteef moo la domine léegi waaw li ñuy wax dëgg-dëgg xéwal da lay sori ak foo mën a nekk ngay gën di jigéen mbugal ngay gën di jigéen mbugal di gën a bokk ci ñi yàlla mere saa su ne ndax lan da nga la ab nga waaw ndax boroom xam-xam yi nitu yàlla dañoo wax ni jaam bi saa yu defee mooy yàlla xolam ba jaaxle na wéet na róog yi jaaxle na wéet na waaw ngëm yàlla ga daal di gën a faible gën a wàññeeku waaw ñu baax ñëpp daal di koy daal koy daal koy jéppi dat koy jéppi moo tax ñenn ci salafu saali dañ laa wax ni ah, ane la aasa llaha fa ara dalika fi xulqi imraati wa daabati ginnaaw mooy yàlla day jeexa jeexital ci sa ci entourage ci sa famille sax mu ma day suma mooyee yàlla damay gis Euh, loolu jeexital ci euh, jikkoy sama kenn sama njaboot moo xam sama jabar la wala sama wala sama sama jur sama jur loolu nag lu garaaw bu fekkee nag léegi di moom ci lañu dëkk nag kon xamatuma ci xamatuma li xew mbaaru looloo waral accident yu bari yi lu ne lu ne mën la ci xew te nag dañoo dëkk ki jinne yi te gisuñu leen te ñoom ñu ngi nuy gis te jinne yi ah, am na ci foo xëy nit ñi ñoo leen fekk ñu dëkk ba noppi loolu lu wér la de nit ñi ñoo fekk jinne yi ñu dëkk ci fu baree baree baree bare waaw te ñoom fa ñuy dëkk su fekkee dëkk nañ fa ba yàgg fa lool yow nga ñëw tracé fa ab tëleeg tracé fa ab aw yoon ak ak def fa ab usine ak kër ak ñu la yombal nekkin ba te bala ñoo demit dinañ dinañ defante yow bala ñu faa jóge yooyu yëpp day am maa ngi fàttaliku ñaar fukki at ginnaaw euh, béréb bii nga xam ni benn béréb ci Ndakaaru euh, benn kilifa ne ma yu tàmbalee béréb sangam ba béréb sàngam day Ah, moo ëpp ay jinne ci wet googu nga xam ni nee nga lan fa am ay mbokk di ma nett mu ni ma benn bis ñëw na ci am ku muy seet ci foofu bi mu wàccee tëli bi ba dugg ci kër kam doon seeti ci route nationale bi la nee na ma ni man ni ma ni ki may seet ah seen tey bu fi jàmm yendoo moom dana ma jaaxal nee na bi may gungewaat may ñibbi si ñu fekk ñu muur nit foofu ñu ni lan la ñu ni ñaari oto ñoo fi daje léegi oto moo fi rey nit nee na ki ma doon seeti ni ma waa yow xanaa lii da nga koo gisoon mu nee na ma ni quoi ah. fekk nee na moom bi mu wàccee ci tëli bi rek dafa gis jinne ju taxaw ci kaw tëli bi te mer na lool oto di jaar ndeyjoor ak càmmoñ oto boo ko ci nar a laal bu la félee xam naa di nga mbëkk beneen waaw te te te te jinne yooyu ñoom buñ la leeralee wax dëgg yàlla ci diggante ak nit ñi ñoom tooñuñu nit ñi ay téeméeri téeméeri junni at say mbokk dëkk ko ci béréb suuf soo sa ay nit ñëw dëkk fa def fa ay raay def fa ay ay tali ay kër yow te mën nga faa nekk nga continuer nekk fa ñu bëgg la faa jële loolu lu yomb loolu moo am su diggante ak nit ñi moo taxit nit moom nay fonk ay muslaay nay tànn fi muy dëkk nay def ay ñaan bala moo dëkk bu dëkkee bu mu bàyyi di def ñaan ak muslaay ak musulaay ndax loolu la gën a metti buñ leen doon gis te duñ leen mën a jële fi ñu dëkk te du leen te duñ leen ñeme kon lay gën a metti kiiraay googu suñu borom def am na côté gum baax ci noonu waaw mbokk yi koo xam ne dafa taqoo ak mooy yàlla day mujj mooy yàlla googu mooy nekk wettalam nekk ci biir xolam moom lay accepté duutu ko ñaawlu mukk ndax la ko dappetoo bu yàggee lay wujj di ko di ko di ko di ko wax wala mu wala mu lu ko biral duutu ko nëbb daal duutu ko nëbb su ko defee nag te yonente bi alayhi salaam lu mu waxoon kullu ummati muafa ilal mujahirin sama xeetu yépp dina leen di jéggal lu dul rek mujahirina yi wa inna man wa inna min al mujaharati an yu'mala al abdu bi layli amalan suma yusbihu qad satara rabbahu fa yaqulu yaa fulaan qad alamtu al baarixata kaza wa kaza mujaahir mooy kii feeñal ak mooy yàlla nee na lii mujaahir mooy jaam bi def dara ci guddi jenn jëf joo xam moom rek moo ko xam xëy te yàlla nëbbal na ko suturaal na ko lim def lu bon loolu lu ñaaw loolu waaye muy yox ni diw ah biig de def naa nangam eh biig diw def nañ nangam demal na béréb sàngam te kat bi mu ko defee yàlla nëbbal na ko nee na kooku yakshifu sutralahi alayhi xam nga kooku kenn kenn kenn kenn térewu ko kenn gënu ko lor lor joo xam ni moo ko def boppam moo ne de ab commerçant day mi ngi nii nekk moroomi commerçant yi muci benn commerçant boo xam ni euh, saa yoo saa yoo xëyee saa yoo wàccee wax say moroom yow li nga doon gañe déedéet loolu koy danga koy nëbb koy nëbb mbokk kon mu jaaxit bokk na ci li yóbbu ni sawara ak dayoos dayoos mooy koo xam ni kër gi daal mi ngi nii terewul xale yu góor yi di am ay hmm, coro di ko fa indi terewul xale yi jigéen yi am ay far ñu leen di seet rawatina nag jamono jin toll nga xam ni day gis ku yor portable boo xam ne dégg naa iPhone moom dafa cher eh, waxuma la dara waaye oto bi mu yor fan yële dañoo jaar fa doon fi ñuy passé permis de conduire mu waaru ci yàlla mbooloo mi yéem na ma waaye la ma gën a yéem mooy xale jigéen yu ndaw yi xaw ma jigéen ju mag sax jigéen ju ndaw gis naa fa ñu ma jàpp ne amaguñ vingt ans ñuy passé permis conduire subhanallah waaw ah, baax na de oto de na ko ñëpp am rek waaye xam naa dina doy waar daal dina doy waar mbokk yi nga am doom mu am loo xam ni valeuru ay millions la te xam nga benn xam nga lu muy liggéey moom munu caa amee genn wàllaatu ceeru lii mu am wala boo xamoo lu muy liggéey waaye yàlla jox na ko teraanga li ngeen tuddee teraanga fekk musiba la musiba la fàggul boppam incha allah waxtu wi jot na wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani